غير مستلم أما رقية بنت النبي صلى الله عليه tànk bi ñuy indi njaboot googu jóge Màkka moom dikk na ànd ak Ousmane boroom këram Ousmane ibn Affan Zeynabu bintu nabi doomam bi gën a ci doomam yu jigéen booba inda zawjiha ma nga nekk fa jëkkëram ibnu rabi ca màkk xayru mustalim <coughs> booba ibnu rabi moom doonul ku tuubagun mu nekk ak Seynabu ca Màkka yonent bi nag ne ko nag na daal di bàyyi Seynabu mu dikk ba mu demee ñu wax ko ko mu bàyyi Seynabu yebal ko mu ñëw <clears throat> booba tuubagul ba ab diir mu door dikk tuub nag yonent bi delloo ko Zeynab am na ñu ni ca sëy bu njëkk ba rek la ca bàyyi yàlla loolu yàllaa ko ko jagle am ñu neet da ko dañ ko takkaat wa kaana bil badri masuran wa arsalaha ila madinati baada al manni karam dem nañu ba ca atu ñaareel ba ci madina kera ci xaru xare badar ba mu bokk ci juróom ñaar fukk yi ñu jàppoon ca la ibnu rabia bokk as abul asi ibnu rabia jëkkëri zeynab ca la bokk bi ñu leen dee laaj njot zeynab ba yónnee ca xadija bi mu ko mayoon boo xam ne yaayam xadija ko moomun yonent bi miinoon na ko moom la jox jëkkër ja ni ko kon soo demee nga jotoo ko ba mu dikkee nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis caq bi xelam dem ci Xadija mu yëram doom ji daldi ni saxaaba yi bu leen neexee ndem jubu na leen e ngeen jéggal ko jëkkëram te delloo ko caqam saxaaba ya d'accord ci mu ni leen e in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu laha qilaadataha faf'alu seetal waxin woowule neewu leen def leen ko kon duñ ci teg baat waaye nag ci adabam ñu rafet mun leen su fekkee xalaat ngeen ni man ngeen koo bàyyil asiiram ki ñu ko jàppal boroom këram te delloo ko ca xam def leen ko ñu daal di ko def mu sartal ko nag ni ko soo demee nag na nga bàyyi Zeynab mu daal di dikk te bu ko fa kile mu ko nag sa bàyyi nee na nga dem ndax booba moo leen ëpp doole mu bàyyi ko gannaaw ga nag noonu waxoon delloo nañ ko ko ba mu tuubee wa arsalaha mu daldi ba yabal Zeynab ni ko wuyul ilal madina baadal man ni gannaaw bu ñu ko jéggalee wal karami ak gannaaw bu ñu jëflanteeg moom mbaax wa zeynabun baasat xaqan xilaadataha fidan wa manna abuha shiddata raxami loolu mooy nu wax léegi xisa boobu zeynabu baasat dafa yebal xilaadataha caqam ba ko ba mu donne woon ci yaayam Khadija xaqan cëg dëgg pour mu nekk njotu jëkkëram boobu di ibn Rabia fi daan mu nekk njot ci jëkkër ji wa man na jéggal ko abooha baayam siddata raxa bi ngir tarug yërmande ba mu gisee caq ba dem ci Khadija yërëm na doom ji <clears throat> ama alatiqu fa abdullahi jaa lahu ciyaalahu ummahu asmaa birrasami ah, mana amma al atiq aboubacar sadiq atiq mooy turam aboubacar kon yàlla ci moom rek fa abdullahi doom ja jaa lahu moo ko andil ciyaalahu ak njabootam yëpp ak ummahoo yaayam soxna si abu aboubacar itam moo ko indi ak asmaa u magam bu jigéen doomu abu aboubacar ndegam moom ak abdullahi jigéenam dal bi rasami maanaam bi sayr al hasan ci doxin wu rafet la agsi ak ñom dikkin wu rafet as rasamu al mashi wa um rawmaana soxna abu abubakar la batay ani ma jublu ci um aisha kooku mo jur aisha ak mu andiko wa aisha bi tarhim aisha tan la bëggoon moo andi yaayu aïcha umma rawmaan ak aisha ci boppam ma abdullahi ànd ak abdullahi len andi walé zil qiyami kay boroomu jub maanaa listiqaama qiyam bi maanaa listiqaama ala hadd qawli ka'b ibn zuhair فهم صرفوكم حين جرتم عن الهدى بأسيافهم حتى استقمتم على القيم معنا على الاستقامة الفصل الثالث عشر في ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم wa adadi xajjihi wa umarihi sallallahu alayhi wa sallam bi fasal ma ngi ci wax ay ay xi magazi yi maanaa li mu jihaad yi mu jihaad yi fi sabilillahi ànd ak wa nag bu ñu ko waxee mooy xeex boo xam ne wala booboo xeex am na ca walla amu ca waaye dañoo demoon pour jihaad yi bu ca yonent àndee kooku xaswa la ñu koy wax <coughs> su ca àndul nag sariya rek lañ koy wax moo xam ñu néew la yebal wala ñu bare waaye bu ci newul duñ koo xasu ajit ah, ñaata aj la aj ak ñaata umra la umra sallallahu alayhi wa sallam loolu la ciy wax ci biir fasal walinnabi adina albaari bi nasbi raxa taduq haamata dil wa adina jox na ndigal albaari tabaraka wa taala min asmaillah linnabi jox na ndigal yeneen bi nasbi raxaati samp raxal xarb maanaa mu daal di taal guerre raxa ismun lil xar bi mana mustaar min raxa taaxun raxa moo doon mu leeñ wayu eh, walukaay yu rëy yooyu bu jëkk nag ay xeer la xew xeer bu rëy la daan doon ñu di ko wala dugub léegi nag mooy arxiya yi ñoo di mu leeñi walukaay dugub yéeg yooyu la ñu arab boobu tur nag arab àbbaloon ko guerre raxaa goo xam ne taduq day wal day mokkal hamatazil inkaari bopp boroom ak weddi shaxami aku réylu albasar mooy kibr ba ko defee wa wa awalan ayatul xajji alladi nazalati nazalat min bacdi wacdi ji ci suratul xajji te moo di udina yin yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir mu ne may nañu ndigal ñi nga xam ne dañu laan daan nekk di leen tooñ di xeex ak ñoom ci kaw tooñ leen te yàlla moom mën na leen a dimbali te ñu bëggoon lu yàgg ku leen jox ndimal yàlla naan leen faafu wasfaxu xataa yatiya allahu bi amri dee nga jëlal muñ leen jéggal le leen te jéllale ba ba yàlla dikk ak mbir ñu bëgguñu lu dul ku leen bàyyi ñu fay ñu ni leen tere déedéet def leen ndànk yonent bi wax na ko a alam tara ila ña daan wax ni wax na ko ci suratu baqara ak suratu nisaa ba tey ña daan wax ni dañoo bëgg e, e, nga may nu ndigal mu ni ko fahal asaytum in kutiba alaykum alqitaalu allaa tuqaatiloo qaalu wa ma lana allaa nuqaatila fi sabilillahi loolu jikk na lislaam bi lislaam dikkeet saxaaba yi bu ñu diiree bëgg a xeex ñu leen waaw def leen dànk rek muñ leen jéggale leen ba mujj nag suurat laay ji premier aaya ju leen jox ndigalal xare mooy inna allaha udina lilladina joju min baadi waadi difaa'in ci gannaaw bu ñu leen daalee ni yàlla dana leen défendaral yéefar yi mooy inna yu yudaafiu an alladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur mu door ni udina gannaaw ga lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir nee na gannaaw bu mu leen daaloon ne danaa leen euh, défendre yéefari min ilahim waadu bu jóge ci seen borom wa baadu yaa ayuha jaat mukarraratan min alkitaabi alazizi almuhkami irtasimi wa baadu gannaaw ga yaa ayuha alladina amanu jaat dikk na di wàcc mukarraratan di lu ñu baamu laa yu bare tàmbalee yaa ayuha alladina amanu nangam nangam ndaxte booba am nañu peuple bu bare bu ñu mën a tudde alladina amanu amaa ci màkka nag amuñu groupe bu bare bu ñu mën a tudde yaa ayuha alladina amanu moo tax ñu ne yaa ayuha alladina amanu yi ci alquran eh, mën nañu ni madina la ñu wàcce amma yaa ayyuhan naasu nag wàcc na màkka wàcc na madina waaye madina moom yaa ayyuhal ladina amanu moo ci bari yaa ayyuhan naasu moom waa màkka loolu lañ fa daan wax madinaat am na ay yoon yu ñu ko ci wax waaye nag yaa ayyuhal ladina amanu moo bare ndax booba mbooloo la moo xam ne ñëpp ay muumi noonu lañ warees na leen a wax ni yéen julit ñi yéen boobu mbooloom julit mu dikk nag di lu ñu takraar min al kitaabil al muhkami ba di bu ñu xerañee ba bu ñu fixé à thème irtasim toppal ndigal imtasil ثم ابتدى بالذي من خوفه طلبوا إطفاءه زائدين النار بالضرم يا رب يوم تواسوا للكفاح به بالجد لو ينفخون اليوم في فحمي لحمزة أقد المختار ألوية عبيدة ثم سعد ضيغم البهمي في رأس زاي وقال البعض ذلك ذاك جرى في العام تابع لولا يا لخلفهم مني su mabtadaa topp mu commencé ñaan la jëkke billadi ci ñi nga xam ni euh, min xaw fii ngir ragal ko tax na talabu ñu sàkk woon it fa itfaahu fay leeram gi waa Màkka daal maanaa yéefar yi maanaa yéefar yi ko gën a euh, gën a gënoon a bëgg ni du dal ci Madina du fi nekk maanaam ñu nga xam ne ñoo bëggoon a fay leeru diineem gi ñoom la jëkke zaidina ñuy yokk naara safara wa bi darami ci ci tàkk faf ñoom ndax ñoo bëggoon a yëngatu pour fay eh, lislaam fekk loolu duñu ko mën ñoo taal kon guerre yaarub ba yow min bare na bis boobu tawaasaw dénkante woon ni kifaaxi ci maanaam janoo di xeex mooy kifaax mu kaafaxatu al muwaajahatu fi lqitaal wal mudaaraba ñu gannaaw ñu dénkante ko ci yéen bopp ba yeggal bil jiddi ci farlu waaye jëriñu leen mu ne law law yam faxoona te neexoon ñu mënoon a ëf al yawma tey fii fahamin ci këriñ loolu matalu arab la xam nga wana faxta fii xayri daram jàng ngeen ko ci maqaam wana faxta yaa ngi mel ni kuy wal fii xayri daramin ci lu dulub taal maanaam yaa ngi def lu dul am benn njariñ li ngay def du jëriñ soo de demoon fekk fu safara nekkul nga tegale say bant ak say matanaa ëf ëf da ngay sonn loolu nag arab def ko ci koo xam yaa ngi sonn di kër këri ci loo xam ne du am natiija du la jariñ dara li hamzati nee na aqada fas na almuxtaaru ku ñu tànn ki sallallahu alayhi wa ay drapeau ndax njiitu geer day yor drapeau ca kaw benn mu yor ko loxoom wala ñu yoral ko ko rek nga xam ni ku xam ne fële la kilifa ga ne ki jiite guerre bi fee la ne moo nag fas na ay drapeau li hamzata benn hamzata ibnu abdul muttalib bàyyi bàyyam bu ndaw boobu nga xam ni moom mooma maase woon ñaari at eh, lañu magante ak ubaydatu ibnul xaaris moom it jox na ko drapeau saadu ibnu abi waqaas jàmbaar ji gën jàmbaare man rama bi sahmin fi sabilillahi saad moo jëkk a sànni benn fett moos ci xeex fi sabilillah nee na day xamil bu xam ka di gayndeeg jàmbaar yi day xam min asmail asad bu xam jam bu xamatin mooy jàmbaar yooyu maanaam nga xam ni kenn xamul foo koy jaar baxmatu mbote xar buhum buhumatu nag mooy jàmbaar jam u buham fii raasi saayin ci boppu yomukaayu juróom ñaari weer ba mu dikkee madina ak yooyu la tàmbali wa qaala al baadu am na ñenn ñu ni zaaka loolu te mooy laa yooyu e, ra drapeau yooyu mu joxe pour taal guerre kat jaraa xewoon na fil aami ci at ma taabiil ula ma topp ci mu njëkk ba maanaam ci atu ñaareel la yaala xulfihim ndaw seen wute ñoom ahlu siira wa kaa yahdi mubridan kabidan ala xilaafin ataana min zawil qudumi loolu nga marché hmm? qadami bon min zawil qadami wika magaasihi maanaa wattu wikaaw daawoon na yeewe ab saaku ida arafa al maana al taalibu lil luqata ida arafa ifaasahu wa wikaahu wikaa mooy bu ñu yewkaay bu léegi nag rams dong la ci jublukat adadu wikaa maanaa juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar adadu wahdi mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaari yaa ak haa ak daal ay wa kabidan adadam moom it moo di juróom benn ñaar loolu dañu wute ndax jixaas maxaas yi yoneen dem ñii ni ñaar fukk ak juróom ñaar la ñii ni ñaar fukk ak juróom ñeent ñaar fukk ñaar fukk ak juróom benn adadu wika mooy sabun wa isron yaf di tison wa isron kabidan sittun wa isron mu ne ala xilaafin ànd ak wute boo xam ne attaanaa dikkal nanu min zawil xadami ci boy jiituñu saabiqatu ci xadam ba jëkkoon ci paas bu jëkk woon nañu ko as-saabiqatu wa taqaddum hmm, mu defee nag lu ca topp ba mu defee luñ jëkk a def xaswatu daan fu ñuy wax waddaan ab xur la min amalil foroxi ñu di ko wax abwa ba tey abwa moo jëkk mooy mooy waddaan ak fu ñuy wax bawaat moom itam beneen xur la saxaabin wa eh, am danañ wax ñenn danañ wax buwaat bi dàmmil bàyyi waaye bawaat ka saxaab wa xuraat ñaari dapt yooyu la am moom itam benn jabal la bu ñu la nee jabal la àll bu turu jabal bu siiw maanaam la fa dëkk ci wetam ci ay nit loolu la ñu naan eh, jabal waaye nit ñaa tax ñuy wax kon dëkk la boo xam ne daal turu jabal ba dañ ko dox de nee bi xur bi yambu fu jógee yambu nee na yonent moo ci jëm ci moo leen dikkal guerre ci weeru gàmm rabiul awwal e, ci fekk booba ñetti weer la gàddaay gi am booba ci kaw bu nu nee at mu njëkk ba mu ngi yor ñaari da ànd ak ñaari téeméer ci ay saxaabaam almuhajirin pour ñu dogale tijaarab Quraysh bi nga xam ni bari woon na barek ñaari junni ak juróomi téeméer ci ay gëléem la woon umayyatu ibn xalaf noon bu ban bu mag bi moo ko jiite woon ànd ak téeméeri góor ci xoraysi yu ko mu jox li waaye raaya ba saadu ibn abi waqas medina mu bàyyi fi saadu ibn muaad raisu laws xabila laws laws ak xasra ñuy yaari xabila yu mag yi foofu ci medina yaay famille yu mag ah, mu saadu ibn muaad mooy kilifa ga nee na yàlla def nag ah, foofu nag moom yàlla def na guerre amu fa moom bawaat jotu ñoo xeex dañoo dem ñoo kenn ñu ñibbisi naka noonu ushayrun fu ñu wax ushayr moom barab la moom ci biir yambo gi nu tuddoon sànq dégg nga mu ànd ak téeméer ak juróom fukk ci ay góor ñoo xam ne ñu ngi amé fanweeri gëleem di ko moomante di war ah, téeméer ak juróom fukk te gële warukaay yi fanweer rek ñu di ko li'tiqaab mooy ñi war ab tund bu njegee tund weekee wàcc keneen war booba ay njëggum Quraysh la ñu doon dogale ji mi nga xam ni jóge na Màkka jëm Shaam ci tijaara eh, dégg nga su ko defee nag raaya bi nag Hamzatu ibn Abdul Muttalib moo ko yoroon mu bàyyi ca Madina mu garde dëkk ba ku ñuy wax Abu Salamata Abdullahi ibn Abdul Asad mu ki nga xam ne moo doon borom këru eh, umma salamata umuna umma ummu salamata zawji nabi sallallahu alayhi wasallam booba faatoogul al-Maxzumi waaye nag boobu xareet dajewuñu faak benn ay nag boobu xaswa ñu dellusi su ma xaswatu safwaan safwaan moo ca topp moom safwaan itam dégg nga nee na yonen ne ah, ibnu ishaq nee na ba yonent bi dellu see jóge ci xaswatu Ushayr ci fukki fan eh, jotula kii ku ñuy wax kursu ibnu jaabir daal di fekk juru madina rek mu dal ci jël ko ala sarxil madina loolu moo waraloon boobu xare nag moom itam ak seen juróom yépp mu yóbbu ko yonent bi génn daal di dem fu ñu wax safwaan wa fekk course raw na rek daw na ba raw ak jur ga rek ah, fekk ba muy dem nag mu ngi bàyyi ci Medina Zayd ibnu Xaarisata dégg nga Ali ibnu Abi Taalib yoral ko dara am radiyallaahu anhu waaye daal jotu la def xay ndax fekk nañu waa ji ñu doon dab daw dem ñu wàññiku ah, yàlla nee na wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas guerre moom bu xasee xew ku jël sa yëfi moroom dem euh, wa badrun ak badr badr euh, kookoo tam mooy garab guerre bu rëy ci atu ñaareel bi nga xam ne nag moom moo yëkkati drapeau bi l'islam ñi ñu doon xeexal euh, à peu près junni daal jëm juróom-ñeenti téeméer diggante boobu te kon mooy am na ñu ni juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk moo tax ba mu laajee ni ko ñaata ngeen mu ni ko léeg lu ngeen di rey benn waay bu ca bokk yonent bi laaj ko ci badar ni ko waaw ñaata ngeen fekk dañ koo jàpp andi ko ci yonent mu àndoon ca jëy si ba talia dañu ko yónni woon pour mu seet mu julli di def mu dikk nag yonent di ko laaj waaw wax ma dëgg ñaata ngeen rek mu ne ko daal ah xam naa diggante ju nekk juróom-ñeenti de waaw dafa ni ko oh, ñaata ngeen mu bëgg ci kisaaka mu ni ko ñaata ngeen di rey bis mu ne ko bis day léeg-léeg nu fukki gëléem loolee juróom-ñeent ah yonente ah fal qawmu ma bayna alfin wa tisimia kon da benn diggante junne ak ñee juróom-ñeent téeméer maanaam kon ci à peu mel na na téeméeru góor ñu nekk mën nañu lekk gëléem noonu la daan def gëléem dafa bare yàpp téeméeri nit nee na ñu ngi yoroon juróom-ñett fukki fas ñoom ki mu nee na ba yonente jóg ibnu ummi maktoom gumba googu di noddkat moom la bàyyi woon muy jiite julli ba ba mu ñëw mu bàyyi ci Medina pour garder dëkk ba Abu Lubaabata jox darapoom bu weex ba mu jox ko Musab ibn Umayr kooku nga xam ne moom moo Xamsatu ibn Abdul Muttalib ñoom ñoo nekk ci buntu armeel yi shuhadaa Uhud ñoom ñaar rekk la ca mënee sa xàmmi ñoo ne ca bunt ba su ko defee dem na qitaalu xitaalun ab xeex ba tey ca la ma sulaym ànd ak banu sulaym kookoo tam ci ger yi nga xan ne dem na ci ak bokkam boppam ci la bokk ak Qaynuqaa moom Qaynuqaa batnun min yahudil madina yow giir la ci yahudi madina joo xam ni am nañu njàmbaaru xeex ak muñ xeex lool nag nee na bisu di la woon ci digg kori ci booba amal gud na ci madina ñaar fukki weer dégg ci gàddaay gi du ah, ñoom la jëkk xeexal ci yahut mu xeex ak ñoom ci shawaal loolu nag ne gannaaw xeexu badar bala ah, dégg nga yonent alayhi salaatu wassalaam bàyyi ci dëkk ba ba tey abolu baabata la bàyyi madina ibnu abdul mundir nee na xaasarahum wër na leen ci seen tata yi ñu làqut teye leen fa fukki fan ak juróom ba nga xam ni diggi eh, teru na nee na booba nag li eh, darapoom xamsatu ibnu abdul muttalib bu koy ronte bu weex la woon yàlla def ñooñu tiit nag lool lool bëgg a xamee ni xisaar ba yàgg na eh, dégg nga su ko defee loolu daal mooy xew-xew yi nga xam ni mën nañ ko ca nettali ci xarab bis boobu baadahu gannaawam xatafaan xarab xatafaan waaw xatafaan nag xam naa faru bu ca bokk la xatafaan giiru arab qadiima gu yàgg la ab sag zubiyaan ci xatafaan lañu ñuy soqi ko de te ab sag zubiyaan kenn xamul qabila yu rëy ni ñoom waaye ñoom ñëpp ci sëti xatafaan waaye nag ñii mu waxit ba tey xatafaan lañu bokk te fekkee dañu tàngu yoneen te xatafaan e, bu njëkk moom ca xuróon yu njëkk la woon xatafaan e, e, xaswatu danañu ko barab bu ñu wax zi amar ñenn ñi di wax anmar xaswatu zi anmar ñenn ñi di xaswatu si amar danañu ko ko wax nee ñaar fukki fan la fukki fan ñaar ci wii ci weeru gàmmu la woon te booba ñaar fukki weer ak juróom la amagun madina ci gàddaay yi nee na la ko waraloon menn mbooloo mu bokk banoo saalaba ak muhaarib dégg nga ñoo dajaloo woon ne fokk dañuy dal ci mm, euh, dégg nga pour def ixaara mooy song ja waa ji ñu wax do moo leen dajale woon loolu moo doon sababu ñu dem euh, ci jihaad boobu hmm. su ko defee yonent nag daldi xiir jullit ñi ci jéem a taxaw bu baax ñu doon ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay boroomi fas mu bàyyi ca dëkk ba Ousmane ibnu Affan ba ñu déggee ñu ne yoneen wàcc na wut si leen nag ñu daldi daw tiit nañu dem ci àll ya ca montagne ya yonent bi dem gisul kenn mu wàññiku foofu booboot xeex amu ca sama boxraan gannaaw ga bis xeex bu ñoo wax boxraan boxraan eh, munzir munzir yu ne dabtam mooy dañoo dam baab bi wax boxraan aywa liñ ca nettali ci xew-xew su ca xew eh, mooy ña dajaloo woon ba tax yonent bi dégg seen affaire ñu ni seen xabaar ni ñu ngi bëgg a guerre dégg nga eh, ñoom foofa la ñu nekkoon su ko defee nag loolu moo doon sababu yonent bi itam jóg wut si leen e, nee na ba mu ko defee ñoom it la ca mujj dafa fekk ñu tiit daw tasaaroo ca àll ba mu de mu wal mu ko dellu si ba tey jotuñoo guerre daal ndax ñu mu doon xeexali dañoo daw ñoom itam mooy moom it ci guerre yi la kooku kenn du ko nettali ñëpp ko dégg ndax moom moo gën a rëy ci guerre lislaam yi gën cee wën metti ah ndaxte juróom-ñaar fukki ci saxaaba yi dem nañu ca ah, moo tax kon moom Uhud moom xar bu siiw la nee na ci weeru shawaal la moom itam nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam te Uhud ci sës ci dëkk bi moom diggam ak dëkk bi ndegam est-ce que dana mat ñaari kilomètre xanaa sax ca Madina gu jëkk ga matul ñetti kilomètre to sax ca fa ma dina tàmbali woon bu njëkk amaa léegi daanaka Uhud ma ngi sës ca dëkk ba rek naka noonu Uhud nag metteem googu tax na mu jox ko sifas xaas sile nee na waqaatul xumami nee na moo di eh, xareb njàqare ba dëgg-dëgg ndax lislaam perte na ci juróom-ñaar fukki jàmbar hmm, ci benn bis حمراء نضير رقاع موعد مع دومة مريسيع والأحزاب لا تنمي حمراء xëy na moo lay xamraa ul asad xamraa mu gàttal turu fii ni xamraa barab la boo xam ne jitam ci mat diggam ak Madina juróom ñetti kilomètre lay tollool ah nee na soo jëmoon zul xulayfa ma ngi féete ci sa loxo càmmoñ kon maanaam penku lay xaw fi lay féete daal nee na suba samedi la woon suba dimanche la woon fukki fan ak juróom benn yoo xam ne mu ngi wii ci weeru kori ah fekk boot fan weeri weer ak yaar la amagul ci Madina dégg nga ngir di dabi noon yooyu nga xam ni dégg ba muy dem nag ah, mu addinu rasulillahi sallallahu alayhi wa jox na ko ndigal dégg nga allaa yaxruja maana ahadun mu muaddin maanaam ki koy siiwalal daal kii siiwalal maanaam muaddin kuy nodd waaye mooy ku doon yëgle luy xew rek ba tey mu la loolu tax ku naan julli gi jot naay di ko wax nit ñu tudde ko mu muaddin nun noo koy firee kuy nodd mu ni koo xam ni àndul ak woon nun euh, démb ci oxut bu mu bu mu dem min dégg nga ku fekk ku fekki woon oxut dong la ñuy ànd te booba kat ñu ngi seen góom yu metti ci oxut mu ne waaw waaye ku demul woon kilo rek bu mu dem mu bëgg a génn pour tiitale ko noonu yi ndax bu ñu gisee métti gi leen dal suñu seddee rek gaa ñi dañuy dal di caakaayu defe ni ñoo ci ne waaye ba ñu gisee ca ëllëg sa te alquran wax na ko ci suratu ali imran ci xisibu yastabsirun soo demee tuuti nga xam ni alladina qaala lahum nnaas inna annaasa qad jama'u lakum faxshawhum fasaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil waaye kooku nag eh, badaru ñaareel ba badaru mawcid mooma boobu nag laay juju foofu la yoo aywa su ko defee waaye daal nee na ku àndul woon ak nun bu mu dem waaye ba ñu déggee ni yonent bi kat dajale da mbooloo eh, dégg nga ñu dina dab si nga xam ni Euh, tax na ñu amum tiit daal ba daldi fegu ci lu bare lu ñu bëggoon def su ko yëngalul woon dañuy daldi defe defee jekku nañu benn bootul sax ñoom ñu jëkk a yëngal te xare ñaare ku jëkk a yëngu soo wattuwul mën na am yaay waaj yaay gañ maa duumat mawid mawid nag mooy badaru ñaareel badaru bu mujj kon ñett lañu badaru suxra maanaam mooy bii am na badar bi ci digg bi nag mooy bu rëy baa badar bu mag ak bu ndaw la ñuy wax waxu mooy bu ci bokk ak bu badar bu mag mooy badaru euh, kilo mawid nag mooy bu ñaareel bi nga xam mooy soxra kubra bi nag mooy bi nga xam ne yàlla yëkkati na ci raayil lislaam ñaar la mawid maanaam ba bisu uxud Abu Sufyaan dafa jóg caakaayu bi mu gisee li jullit ñi daj mu ni ulu hubal ulu hubal ca ca ca Uhud maa ngi seen bi ñu wax hubal mu naan ko féeteel kaw yaa kawe yaa kawe yaa kawe maanaam yaa kawe lislaam eh, dégg nga yoneen tontu ko ni ko allahu ala ajal mu ni nag mawidukum badrun fil qaabil yonent ni ko inchaa allah waaye nag yonent daal di préparé ñu dem mawid dem ba ñu demee fekk Abu Sufyaan dikk na ba ci yoon waaye ragal dal na leen daal mu ni waa Màkka sunu atu ren mii daal du atum xeex ndax jekkuwun bu ngeen yóbboo ñu dellu rekk ba beneen fekk ñu ngi yób jotoon seen euh, yóbbali mm, suis su euh, nu mu euh, ñam woowu mooy moo mel ni ki njóorinde cere njóorinde daal moom la defoon ay mbuus ba ñu wàññi nag dëkk ba di leen ñaawal ay yéen kay bëgg a bëgg a lekk su eh, sawiq laay wax bëgg a lekk sawiq ci àll bi moo leen taxoon a dem di leen ñaawale loolu ndax dañoo dem ragal wàññiku jullit ña dem ak seen commerce ba ñu yóbbu woon ku ci ku ne am na cent pour cent ca la mu fa jaay ca marché te kenn xeexu ñu yàlla tudd na loolu nag ci sar sar ali imran ba muy wax alladina qaala lahum nnaas inna nnaasa qad jama'u lakum ndax euh, dafa dañu yónni benn waaye neexal ko ne ko soo demee na nga leen na nga nu leen tiitalal ba bu ñu jëmee dikk dégg nga te mooy no am noim waa ji ñu wax noimu al asja'i moom lañu neexal ni ko demal nga tiitalal nu leen daal ndax leen dañu koo jékkul Abu Sufyaan bëgg na sagu daal te ñemewuñ a ah, ba mu demee wax leen wax ba yeggal qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil yàlla tagg leen ci loolu ni am na ku leen ni inna naasa qad jama'u lakum waa màkka dajaleen nañu leen mbooroo mu yemul fax faxshawhum na ngeen leen ragal bu leen dem di alag seen bopp fa qaalu hasbuna allah wa ni'mal wakil nu nun yàlla doyloo danu ko yàlla rek lañu wakilu ci moom yàlla nu mu ko nettalee ne moo taxit seen badar ba neex na ba ñu demee jaay marché ba cent pour cent la ko ne am te dajewuñoo xeex dajewuñoo dara mu ni eh, eh, fanqalabu bi ni'matin min allah mooy xéwal googu wa fadlin ak ngañaay lam yam yamsasum suun benn tartar dalu leen fa wa taba on tabaoo ridwaanallahi yor ca dolli topp nañu ngërëmu yàlla def la mu santaane wallahu zu fadlin azim moom la defal jullit ñi ci badar mawid boobu la ah bu jëkk ba nag ca la lislaam yëkkatiku moom la abou Sufyaan ñoroon ni kon bu déwénee nantiku moom la